Bambey CREI pour mu mën a am un bloc opératoire disponible et vraiment utilisable ici au niveau de de de son centre de santé identifié nañ site bi def nañu lépp mais jusqu'à présent loolu mooy suñu problème mais ça fait déjà deux ans mu ngi nekk en retard et que vous êtes comme vous êtes des porteurs de voix vraiment ñu bëgg ngeen taxaw ci euh, de sorte que vraiment cette euh, euh, institution boobu ñu mën ko am dans les plus brefs délais parce que décès yi may wax ni le médecin chef adjoint est là on les a audités c'est des décès qui sont évitables. bloc bi li ko retardel mooy dama dem ba di ko engagé pour defar bi waa ministère intervenir ne dañoo war a tabax bloc opératoire Bambey de trois cent 350 million alors docteur Kane bi nekk fii médecin chef bi ne donc monsieur le maire nañ ko suspendre ba ministère def bloc boobu mu wax comme ça ñu fab fonds yi destiné au bloc ñu viré ko feneen surtout urgence. comme ça mu nekk beneen investissement moo tax ñu stand mais sinon heure bi bloc bi pare woon na loolu moo tee bloc bi pare ba léegi donc c'est entre le ministère de la santé ak waa centre bi loolu moo ko téye.